li yéeme mooy ña Ousmane Sonko ni woon baaxuñu bëgguñu réew mi lañuy woote gëmuñu ko saa yu ñu yewwoo am yuy gën a firndeel la Ousmane Sonko waxoon ci ñoom saa yu ñu yewwoo nag Ousmane Sonko mi nga xam ne dafa woote woon patriotisme bëgg réew mi jub jubal jubbanti liggéey Sénégal saa yu ñu yewwoo di gën a am ay firnde yu dëggal la mu doon wax ci ay kàddoom démb ak bërki démb te bés bu ñu yeewoo nag muy gën a leer tey mu feeñati ci euh, communiqué bi nga xam ne génne nañ ko ginnaaw bi ñu defee seen bureau politique de Pastef bi ñu dajee ba noppi ak premier ministre Ousmane Sonko mu feeñ ci tey mu feeñati ci demuk président Diomaye ca international ngir waxtaane lañu wara doxal ci mbiru Afrique ak international sommet boobu noonu président Diomaye am courage bu toll na taxaw jël décision te amul lum ci rus amul lum ci nëbb seetu ci lenn ba pare def ko ci gëm-gëm def ko ci pas-pas def ko ci mais vraiment mu fay feeñaat encore tey muy feeñaat ci saa yu njaaxum génne ci réew mi nga jóge ci foofu aussi mën a demaat scandale yi nga xam ne mooy feeñ ci réew mi xoolal le cas de Idriss Seck Youssou Ndour ak ñi ci topp xawma kan moom mais Idi moom moom moo jël raw gàddu gi man moom bis ka tey dama koy tuddee ndaamal 13 ndaamal kajoor gi moom dindi naa ko ndaamal 13 laa koy tuddee 13 hectares nga mën ko jël yow xoolal sax Thiès mais mais da nga dul mën a comprendre ñii ay yan genre nit lañu vraiment Sénégal bëri na ay imbécile

feeñaloon nañ seen position ci làmb ci wane ni bi fi yii yëpp feeñee ba noppi ginnaaw lañu jëf ci seen digganteeg nguur gi fi jaaroon te ki ci yées di Macky Sall ginnaaw bi ñu jëflanteek askan wi bi ñu soxlaa ni mbër yi taxawe ba tey fii ñu agsi patriote yu bari def nañ ci ay vidéo wane seen position pour wane ni ñooñ làmb nii naa ay nit yu gëmul dara lañ seen intérêt personnel mën a ñor làmb amul benn njariñ ana lan la làmb lan la làmb jëriñ sénégalais yi def ci ay video yu bari kenn ku ci ne wax ci mais li ma jaaxal nag mooy tey jii dama gis lenn ci patriote yooyu mel na ko intéressé wu ci événement wu démb bi muy làmb ji man loolu mu doon li nga xam ni dama ci àndul te d'accorduma ci man li ma gëm mooy bu yàlla dogalee nga gis ni yow lamb amul benn njariñ te muy dëgg benn njariñ amu ko làmb lan la jariñ Sénégal kenn xamu ko te muy dëgg lamb benn benn lay jariñ mooy ñooñ lamb ñoom mbër yi ak promoteur yi tëgg te muy dëgg te li koy firndeel mooy saa yu lamb amee mboolem lu ko jege ci marché da ngay tëj mboolem ku ko amoon activité jege ko da nga koy arrêté lamb day handicapé secteur bi nga xam ni moo ko wër yëpp saa yu am day demandé sax ba laalaale ñaari mbër yu mag ya fa ñuy déparé ba ci stade bi loolu lépp daf koy handicapé ñun ñëpp ay éliminé wu loolu rek dèjà benn problème la boo xam ni wane na ni làmb jaruñul ku mooy promoteur bi koy tëgg ak mbër mi nga xam ni moo koy bëree te muy dëgg kon lépp lu ñu wax ci làmb dëgg la ci ñàkk amam njariñ ci doon ay nit yoo xamante ni seen intérêt bopp doo nga leen ñor ci doon ñoo xam ni li ñu fi wane fii ci réew mi te mu jaar fi ñëpp xam nañu ni ñii gëmuñu dara bëgguñu réew mi ay nit yu tekkiwul dara lañu mais loolu soo ko waxee ba noppi man li ma gëm nag mooy kon làmb da ko war a wàcc danga war a wàcc làmb ak lépp lu mu àndal bu ñu agsee ci lu mel nii démb événement làmb am mais nga wane ni yow sa yoon nekku ci ngir la nga ca waxoon démb day daal di dëppoog sa jëfi tey mais mënuma d'accord nga jël sa vidéo teg yàq ëllu làmb li nga leen lakk yàq yépp wane goo wane ni àndoog ñoom wane goo wane ni ñoom ci seen bopp li tax àndoog ñoom mooy ñoom ñoo sikk ñoom ñoo safaanu ñoom ñoo baaxul ba noppi làmb am démb évétement yow tey nga mën a taxaw di ci wax di ci def ay vidéo di ko promouvoir mais kon patriotes yi def loolu nañ ñu dimbali te bàyyi mbër yi te bàyyi ëllu làmb ndax waru leen am droit di ci wax amoo leen droit di ci wax parce que yéen ak ñoom a bu dee vaar la su ngeen vaaratee mbër mi ba noppi su ngeen paree vaar leen seen bopp parce que la ngeen waxoon démb position boobu day wuuteeg bu tay bi bu fekkee lépp loo doon teg ci kaw mbër ma rek yaak mbër maa yem su amatee lu ñu war a wax jëmee ci làmb ak ëhlu làmb yéen patriotes yi nga xam ni tey jii def ngeen ci ay vidéo di ko di ci commentaire ngir xawma da ngeen a jàpp ni rek yéen xa maanaam xam dafa mel ni sax xamoo ci lan nga war a wax ak ci lan nga war a wax parce que man li ma jàpp mooy position ba boo ko amee même bu dee làmb tey mooy actualité bi yow waroo ci wax même bu dee mooy actualité bi yow waroo ci concentré wu waru la jaral parce que wane woon nga démb sa position lii mooy li dëgg bu fekkee nag loolu mënu nekk bu kenn ci yéen yàkkati dara jëmale ko ci làmb ak ëhlu làmb ndax loolu su boobaa day tege ci narfeq day tege ci tappale day tege ci fen day tege ci nit kuy wax lu mu gëmul te loolu mënoo ci nekk ba noppi di tudd sa bopp patriote di woote patriotique patriotisme loolu mënul nekk entre parenthèse boobu laa bëggoon def. léegi nag Ousmane Sonko premier ministre bi mu waxtaanee bureau Pastef ba noppi jamono bi nga xam ni moom mi ngi bëgg ay ay jëfu tayam dëppook jëfi démb ci même jamono boobu. On ne peut pas dire qu'il y a de l'eau de l'eau, on ne peut pas de l'eau, on peut dire qu'il de Imagine-toi 13 hectares, 13 hectares. 1 hectare égale 120 parcelles. 13 hectares. man ma mën a xëy ci réew mi mën a janoog sénégalais boo xam ne day taxaw di jàppal tànk Idrissa Seck man su boobaa mbiru Idrissa Seck ma méttituma mbid mbiru Idrissa Seck ci ay ndëngal yu ñu ko yàgg jiiñ ay sàcc ay luubal méttituma mais yow mi nga xam ne sénégalais nga des di jàppal tànk Idrissa Seck di wane ne danga ko bëgg wala tey bu dikkaatoon ci ëtt politique bi am ci doole da ngay àndanteeg moom mais yow moomu yaa ma jaaxal ndax dama xam ni yàgg mooma yem amoo leen xol bon ngeen bañ ngeen sénégalais yi amoo leen benn lu ngeen ni rus xooloo leen ëllëg ñu war a jiiñ sàcc euh, seeni sët toog ñuy jiiñ sàcc seen maam seeni doom toog ñuy jiiñ sàcc seen baay mais dara yéen rusoo leen ko vraiment yéen a bon yéen a soxor yéen iñaan yéen a wow xol ki ma ci gën a soofati encore di Youssou Ndour nga xam ni tey moom doon na koo xam ne ci réew mi man man de wax dëgg yàlla sentiruma néew ma amul de xëy na am na ñoo xam ne tey Youssou Ndour doon gu mu doon li mu doon ak li ko yàlla jox ñu ngi ciy sentir njariñ gu mu amal sénégalais yi xëy na man man sentiruma ko xawma ko yëguma ko it fenn dégguma ko fenn wëlbatikuwaat saa yooy gis ci réew mi koo xamante ni nii day taxawee taxawaayu workat taxawaayu nitu intérêt taxawaayu koo xam ne boppam kese ko ñor saa yuy am tur yooyu soo koy déglu di nga ci dégg tur yu si nduur rax ci dolliwaat saa yooyu déggaat wàllu ndëng teg càcc di nga ci déggaat tur yu si nduur moom it mu ŋàbbu ca cinq hectares daw moom ca mburkaat cees ñaata ci ñoom mais ñaar ñi man ñoo ma ci gën a déranger parce que dangay ngay mën a taxaw gis koo xam ni dafa leen a bëgg jël am fu mu leen aj am ay dayo yu leen bëgg a jox am cër yu mu leen bëgg a amal man loolu moom ma déranger te ki ñu war a jox cër kan la dañ ko war a xam nag sàcc nan lañ koy joxee cër nitu intérêt nan lañ koy joxee cër koo xam ni amul benn yërmande ci askanam nan lañ koy joxee cër moo tax ñoom ñaar ñii ñu ma ci gën a ñor mais nag alhamdulilah tey bi ñu yàlla suturaalee ba ñu dem agsi ci moom suñu Sénégal am suñu réew bi ñu agsee ci xëy taxawal suñu gouvernement am suñu état bi ñu amee président bu mel na Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi premier ministre bu mel Ousmane Sonko ak seen gouvernement alhamdulilah lépp dina changé bu neexee yàlla lépp dina changé beneen bi ma ci gën sommet international bi président Diomaye tey Palestine depuis kañ ñu nekk di dund dund adduna bi mel ni ay jullit amuñu fi adduna bi mel ni ay jullit nekkuñu fi te kenn ku ci ne tey waroon koo jël mu doon sa yitte bopp nga war ci concentré wu au delà de loolu bu bu dee côté état mais réew mu ne waroon jël sa position défendre Palestine ci lii ñu nekkee ñu koy teg ci seen kaw ngir jaay leen doole ak bañ diine ak di ko xeex. suñ président yi nag dañ daan toog war a jël position wax ci lu leer mais dañ daan tappale mais Diomaye saña a taxaw ñëpp di ko déglu. mu jël position ferme ci wane ni mi ngi ci ginnaaw Palestine mi ngi ci ginnaawam ci lépp moom la àndal ci lépp ba pare taxaw temm ci woote ci ñu war a jug ba néew gi ñu leen néewal doole war a takk war a jeex courage boobu mu am tey bokk na ci li nga xam ni tey Sénégal mësuñu am njiit yu ko am te day seddu xol trop ci ñun sénégalais yi day doon suñu ndam par rapport ak mbooleem dëkk yi ñu ko sékkal ci sous raison bi ci ñiñ ko bokkal ñu seen nawle dañ ñu koy nawee parce que dañ koy waxtaane te dafa bokk ci ay valeurs yi nga xam ne tey moom la ñuy xaar ci président jërëjëf président Diomaye jërëjëfati président Diomaye léegi nag jërëjëf te tamit président Ousmane Sonko ndax woote na ci ñëpp ànd d'ailleurs la ci gën a neex rek mooy li may wax bis bu ne ay waxam day dëpp ak ay jëfam tey la mu doon woote ci cumul de euh, cumul de postes yi ñuy def tey jii tey nga xëy dégguñu ne la président Ousmane Sonko maire ga mu jiite woon ca dëkkam tekki na ndombal tànk boobu muy dëppook wax gu mu waxoon ni kenn warul boole yenn fonction yi di ko yorandoo nga mën a xëy dégg ko ci Birame Souleye Diop dégg ko ci keneen sa xel saa yu xëyee gouvernement bi di ko gën a dalal sa xol bi saa yu xëyee gouvernement bi di ko gën a bànneexal di ko gën a neexal nga xëyee te di dégg ñu ni accord de pêche yi dañ koy arrêté définitivement ci mboolem ku Macky Sall joxoon accord de pêche dañ koy arrêté mais yéen bu yàggee suñu xol bi sax est-ce que est-ce que suñu xol yi bànneex du ko du ko mais macha allah daal wax dëgg yàlla yal nañu yàlla turi sutura ba li ñu bëgg ci gouvernement bi tey yëpp ñu xëy sottil ko ba Sénégal mën a doon Sénégal sénégalais yi moom ko jëriñoo ko fanu gudd ànd ak wér sutur ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yéen nañ ko yàlla bare defal ba beneen yoon incha allah.